313 digital jërë ngeen jëf euh, mbokk xaritu internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax rafet la ànd ba ngeen ànd ak télévision askan bi seen micro trottoir saa su ne ñu dox ci actualité actualité bi xam ngeen ko mbirum Cheikh baare Ndiaye actuellement ba léegi mi ngi ci kaso bi def li nga xamante ne moom mooy euh, grève de la faim gis ngeen weekend bi passé euh, ñi nga xamante ne moom mooy ay mbokkam nekk fekk Tëngéej ñu génn def li nga xamante ne moom mooy point presse euh, di ñaalu li nga xamante ne moom mooy ni mu jàppee corps du Cheikh Bara Ndiaye ñu gis encore une fois le lendemain ñi nga xamante ne moom mooy waa Walfadjri def li nga xam xamante moom mooy sitting di ñaawlu encore une fois li nga xamante moom la ñu jàppee euh, kii di Cheikh Bara Ndiaye moom mi nga xamante ni daawul daawul ute daawul manqué li nga xamante mooy màggal Touba ku ne xam ne màggal màggal tubaab bi c'est quelque ci mi ngi suñu kanam mais bientôt mu ñëw incha allah rabana donc incha allah moom mi nga xamante mooy Cheikh Bara Ndiaye mi ngi ci kaso bi ay mbokkam sàkku ñu génnee ko mu libre euh, nekk ci ay yitteem raison pour laquelle ñun waa 313 ñu wàcc terrain bi encore une fois jox kaddu gi ñu wax ñu lan lan la ñu xalaat ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye moom mi nga xamante ni ba léegi mu ngi ci kaso bi def li nga xamante ni mooy grève de la faim léegi-léegi mbokk yi jox kaddu gi les les sénégalais ñu wax lan lan la ñu xalaat ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye. ah waaw xanaa ñu dawal yërmande rek dawal ak taalibe seet li nga xamante ne bii moo gën ci doomu aadama ñu def ko parce que am na ci yoo xamante ne bii moom metti na torop te itam lu mun a ñàkk la comme taalibe la citoyen la te bëgg naa màggali Touba te ay mbokkam yëpp bëgg nañu mu màggali te nee nañ dafa feebar ci kaso bi ah bu fekkee noonu ñu ko waxee noonu la amee maanaam ñu dawal ci yërmande seet li nga xamante ne bii moo gën waaw ñu def ko. benn mbàkk bu jógee Touba bëgg ñu seet ko fan yi mais mun ko bàyyi mu seet ko. waaw loolu nag xam nga seeni problème la ci seen biir. maanaam mbàkke mbàkke yi nag suñuy sëriñ lañu waaw suñu sëriñ itam am nañ droit ñu nekk ci xat-xat ñu seet si ñu te nag buñ ñu seetsee itam war nañ ñoo may mat gu ñoom war nañoo am mat gu toll ne maanaam ñu may ko mu gis ko pour man sama xalaatu bopp. waaw comme suñuy sëriñ lañu te ñoom la ñu yaakaar bu ñu demee ba dégg nañ ñu ngi ciy tolof tolof dégg na seex Bara Ndiaye mu ngi ciy tolof tolof mu ñëw seet si ko li gën comme dafa jóge Touba te bu dul dara itam maanaam Mbàkke gi nga xamante ne bii Serigne Touba moo tax mu sant Mbàkke te lépp lu ñuy def yàlla ak yeneen beeg Serigne Touba moo tax ñu di ko def ñu may ko rek mu gis ko loolu da laa ci gis man waroon nañ ko mën a may mu gis ko nag bu dee ak taalibeek ak Serigne rek la bu dul politique du dara bu dee taalibeek ak Serigne rek war nañ ko bàyyi mu gis ko. Cheikh Bara ñoom nee nañ euh, Cheikh Bara euh, mosut a mosut a manqué màggal Touba. te ñoom nee ci kàddu Cheikh Bara nee na bu Cheikh Bara génnul moom dee sax dina dina dem Touba eh, ndax teeyu màggal loolu noo koy jàngate waaw seex Bara nag xam naa taxul ma miin ko lool dégg naa ko waaye nag dégg naa lu baax xam yu baree baree bari loo xamante ne bii ñu bari parce que fu mu toll nii depuis ñu jàpp ko ba léegi sax moo tax ma xam seex Bara Ndiaye ndax damay gis comédien yeeg yeneen ak ñeneen boo am na benn sëriñ boo xam ne ni maa ngi dëkk ak moom Touba ndindi Sëñ Fall laa dëkk ah, ñu di ko wax Ibrahima jaañ mën naa ne mooy imaamu jumaay ndindi Touba ndigal keroog dama ko nuyu di ko laaj mu ne ma ñëwoon naa dakaar ma ne ko loo fa wut si woon mu ne ma Cheikh Baara Ndiaye laa seet si woon ma xam ne kon Cheikh Baara Ndiaye nit ku baax la te nag ah, bu ay mbokkam namee mu màggali ah bu fekkee ndimbal mën na cee am pour mu màggali. nañ ko may mu màggali rek ay mbokkam loolu lañ bëgg te ku dul mbokkam sax loolu ngay bëgg ñun murit yi yëpp kon loolu lañ bëgg waaw bu ma sañoon bu ma sañoon ci sama sañ sax ay sama xalaat ak sama xel mu gàtt laay wax de waaw bu mënee ne rek ñu dimbale ñu ci mu ne waaw. yoon bi ci réew mi ku wax ku wax ñu jàpp la ku wax yenn ñu jàpp la tëj loolu tamit loo ci xaar yow en tant que sénégalais. waaw man nag sénégalais laa mais dafa am loo xamante ne bii. du ma ci wax affaire politique bi moom wax dëgg fa yàllaam bu ma sañoon génn. yoon la yoon ak politique bokkul mbirum yoon. ak politique waaw yoon ak politique parce que politique dafa jaxase yoon yoon jaxasoog politique xam nga dafa am yoo xamante ne bii doo ko ci mën a wax parce que nag wax dëgg fa yàllaam euh, dëgg moom kenn ku nekk xam na ko kenn kuy dox fii nii rek xam nga dëgg nit ku nekk boo defee luñ la jàppee xam nga ko boo deful luñ la jàppee xam nga ko xam nga ko la jaayee doole jàpp. nit ñi xam nañ buñ la jaayut doole jàpp la nit ñi xam nañ kenn ku nekk itam la ngay wax ba ñu jàpp la kooku yow lay concerné waaw man daal loolu laa ci xalaat. Cheikh Bara da ko tooñ wala wala wala da nga ko jaay doole. waaw histoire bi nag dama ko teewluwut bu baax a baax moo tax mënumaa xam ndax dañ koo tooñam dem waaw. jaayaf ku baax merci jërëjëf tawfeex ak tey si. waaw avant tout dañuy sant yàlla. dinañ situation Cheikh Bara moom. li ngeen koy déggee lañ koy déggee rek mais en tout cas lu ci monti am war nañoo dawal yërmaande ci moom comme wér-gu-yaramam demeetul noonu te Cheikh Bara ci liñ jot a xam ci moom mooy affaire diine lañ xam ci moom mosuma déggee fu muy waxee lu dëbër de wala loo xamante ne day taal réew mosuma ko dégg man bu mu fekkee mos na am tey man mosuma ko dégg li ma gi jot seddaan ci moom yëpp moom loo xamante ne maanakam mbiru diine ak loo xam ne kàddu yu la ak wax sa xalaat loolu laay dégg ci moom man. actuellement moom Cheikh Bara Ndiaye tawat na lool feebar na lool parce dem démb gis nga waa këram génn wax ak ñi nga xam te ñooy liggéey foofu ci yi def benn sitting di ko jàppale pour ñu ñu nga xam te ñoo ko jàpp ñu mën ko bàyyi ndax ndax tamit yegguñu ci libéré Cheikh Bara Ndiaye mu dem ci ci ay mbokkam. waaw xam nga dafa metti tey yoon teg la loxo say njaboot nga bàyyi sa njaboot ci ginnaaw tey waxuma la Cheikh Bara man yërëm ma Cheikh Bara seen waa seen waa kër laa yërëm. Eh, jabaram ak tuut tànkam ak ay mbokkam te ñu ngi naan barki dem ba léegi ñu ngi dem mënuñ koo gis xam loolu dafa metti loolu dafa metti danga koy xoolee bu doon sa frère wala bu doon sa papa wala bu doon sa mbokk ni muy méttee ci yow noonu lay méttee ci ñoom te Cheikh baara Cheikh baara ñëpp la boo tey boo toogee bu fekkente ne maanaam dëgg rek moo la ñor diine rek moo la ñor yaak moom yéen a bokk li ngeen di xeex tey dama jàpp ne ak màggal bi ñuy jub si ak lu mën a am ñoom war nañ cee seet yàlla quoi ñu bàyyi ko comme wérgu yaramam demeetul noonu parce que bu dul dara moom jullit la te li ñuy wax gis nga président Macky Sall maanaam yàllaa ko fi teg tey buñ koy tooñ moom na xool ne mu ngi tooñ suñ borom te suñ borom da koy jéggal sa normal muy jéggal di jëlale parce que dafa am foo am bu la fa yàlla tegee pour loolu moo tax mu teg la fa. il faut que ngay wone ne yow da bokk ci ñi gën te lii la ko koy permettre mooy nit tooñ la nga mënoon koo def lu leen nga jël ko baal ko. ñenn ci ay jegeñaaleem boo ko séenee actuellement doo ko du du sax nduróog ni mu mel bu njëkk maam dafa feebar ba fi mu toll jëmm yi sax dafa xaw a soppeeku loolu noo koy jàngat. waaw bi ma di bi ma ko déggee aw ma ci leen lu dul aw ma ci lu ma neex parce que Cheikh ci tele laa ko gis xaw ko cent pour cent mosuma ko gis ni face à face mais émission daaw ma woon rëcc parce que kàddu yi mu doon wax dama ci daan gis sama bopp te li mu doon digle ndaw bu ci tegu di nga gis sa njëriñ tey bu demee tey situation yi tey dem ba demee noonu tey ku waxal yàlla rek xam ne Cheikh Bara loolu kenn yéenewu ko ko maanaam tey lépp lu may wax daal mooy ñi ko jàpp nañ dawal de ko xam ne moom tamit dafa bàyyi ay mbokkam tey fu mu fu ñu monti nekk tey tooguñu taxawuñu ay mbokkam ñëpp a jaaxle. ñu koy jàpp gis nga fa ñu ñu ñu ñu fekk ko ci këram maam otoom daa koy taal mu loo xamante ne ñu bëri boo gisee xaw nañu xaw naa jaaxal ñu bëri quoi loolu tamit loolu loo ci wax. waaw loolu yëpp seetaan naa ko ni ci ci YouTube bi rek xam nga information yi moom dama koy seetaan ni ci YouTube muy otoom ñu taal déjà loolu rek njàngat la parce que moom otoom biñ ko taalee moom bi mu toogee dafa sant yàlla quoi mu ne yàlla ma jox oto bi lii ñu taal du dara amaana ñi ko doon woo sax nee na woote gi ñu ko doon woo di koy mosawu ci oto bi gënalu kon xama nga ko ku gëm yàlla la moom ya jàpp na ne yàllaa ko jox oto bi taal nañ ko amaana looloo gën ci moom yaa ngi dégg ba jàpp bi ñu ko mujjee jàpp këram mu nekk lu garaaw parce que écran bi da doon wone fi ñu ko jàppee ñu ne dafa julli woon fajar toog nekk ci xas yi day xam mu nekk loo xamante ne lu garaaw la ko jàpp dañ ni euh, maanaam Cheikh Bara bokk ci ñoo xamante ne ñooy influencer ndaw ñu quoi pour ñu dem euh, mooy ñu jàppale Sonko bokk ñoo xam ne dañu jàppale Sonko di influencer li nga xam ne mooy xale yi pour ñu génn di est-ce que tamit loolu moo ñoo koy jàpp wala. loolu nag xam nga réew mi li fi xew yëpp mënoo xam lépp mais man li ma jot a dégg ci Cheikh baara kàddu yi ma jot a dégg ci moom mooy loo xamante ni man mosuma dégg fu muy wooy ay nit ne ñëw leen taal mosuma ko dégg. bu dee nag wax na ko man mosuma ko dégg Cheikh baara maanaam mosuma dégg ci moom lu ma koy xeebee man waaw duma ay waxam daal dama ciy gis sama bopp parce que njëriñ laa gis muy wax ak dëgg waa ak diine wax sa xalaat ne xam nga tey mën ngaa wax sa xalaat man ma wax sama xalaat suñu xalaat du bokk waaw mais man leen laa contre man ma nangu sama xalaat ne du ma la nangul sa xalaat loolu d'accorduma ko ku nekk da ngay wax sa xalaat mais Cheikh Bara daal li ma mën a seere ci moom mooy nit ku baax la te nitu diine la. ko diine nekk Touba am na ku am na ku fa jóge woon ñëw Ndakaaru bëgg ko seet si mais mu na ko may mu gis ko ndax nee na ko mën na koo gis loolu tamit eh, ci lu mu bokk. comme lan. am na benn mbaaka mbaaka bu jóge tuubaa ñoo bëggoon koo seet bëggoon seet ki Cheikh Bara mais muñ na koo may sax mu gis ko. waaw loolu dégg naa ko dégg naa ko depuis barki dem maa ngi koy dégg ñu koy wax. ñu naan kooku dafa ñëwoon indil ko xaw ma ay tàndarma ak ay banaana pour ñaan ko mu bàyyi grève de la faim bi xam nga loolu boo ko xoolee jàmm la parce que tey ki def grève de la faim amaana ñi ko jàpp sax bëgguñu mu def loolu te ñun ñi nga xamante ne ñun ay soppeem lañ bëgguñu loolu muy def tey bu nit jógee fee tey mën cee dara mu yaakaar ne lii su ma demee dinaa ci mën dara su ma waxtaaneek moom dina bàyyi li mu nekk grève de la faim ñu réglé leneen pour man kon kooku waroon nañ koo paramètre mu gis ko amaan nag li ko tere ñoom mu gis ko amaan na ñoom ñoo ko xam mais damaa jàpp ne waroon nañ ko mën a gis daal. waaye euh, ma jeex la yow fu fu réew mi toll maanaam ku wax nga jàpp tëj ku génn wax ci yenn yi ñu jàpp tëj bu réew mi demee ba instant bi amatul liberté d'expression ci réew moo xam te ni réewum réewum démocratie la loolu tamit moom loo ciy jàng en tant que sénégalais instant bi kenn amul fit wax. waaw loolu dégg la tey micro bi am na ñoo boo leen ko talaloon tey ñu daw la parce que du dara li xew ci réew mi moo tax li may jàpp nag mooy. réew mi tey dañoo toll foo am ñun ñëpp dañoo war a dem liggéey te dépassé yenn yi gis nga ñi fi nekk nañu yërëm ñun ndaw yi gis sa problème situation yi di am nii nii nii da ngay gis tey xale yi di dugg ci gaal gi di dee nii ñàkk am ci luñ jàpp la rek fii kenn du bàyyi dund di wuti dee te tey amaana yaa ngi dugg ci gaal di dem xamoo looy fekki bàyyi sa dëkk di dem dëkk jàmbur xamoo looy fekki pour man dama jàpp ne kon lu ñu war a nekk buñ ci nekkee. amaana ñun dinañ toog suñ dëkk liggéey parce que tey fu ñu mënti dem ci àdduna ak lu ñu mënti am suñ dëkk la ñuy tiitaroo Sénégal kon man su ma amee lu may wax mooy yéen yi mën na ñàkk nañ dawal yërmande ci ñëpp ci jeunesse bi parce que réew mi toll na foo xamante ne ci loxo jeunesse yi la nekk jeunes yi tamit dépassé yéen yi dem liggéey yi mais tamit ñi fi nekk ñooy jàppale jeunesse yi pour ñu mën a dem liggéey parce que bu fekkente ne tey loo jéem tey ñu génne la ci loo boo waxee fii ñu jàpp boo jaaree amaana manifestation yi ngay gis sax bu amee ñu du ñu mën a génn sax liggéey parce que mën nga génn liggéey ñu jaawal laa ñuy manifester wu te fekk na yow bokkoo ci loolu day dem ba doy toolu faa mi ñëpp lay yàqal ku ne sama yoon nekku ci di nga toog sa kër sax dootoo mën a liggéey dootoo mën a dax dara bu yàggee sa yoon da ciy nekk kon nañ ñaan jàmm ci réew mi parce que réew mi jàmm ci jàmm ci la lépp xej tem que réew mi amul jàmm nit mënoo toog am jàmm ne sama yoon nekku ci te lépp lu ñuy monti wax muy mbiru Cheikh Bara muy mbiru Ousmane Sonko muy mbiri keneen ak keneen réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañu xam ne ay julit lañ te julit warul am na loo xamante ne maanaam xejul suñu diggante daal man daal lu ma mënti wax mooy mbiru Cheikh Bara koo xamante ni méttiwu la doon it vraiment métti na. looy jeexale waa di sant yàlla bu baax di ñaan jàmm ci réew mi nag euh, damay faral di dégg chaque jour ñuy naan kilifa diine yi nañ génn wax pourtant kilifa diine yi ñu ngi wax de ñu wax lu ñu mën. xëy na nag peut-être lu jot dina yomb mais yal na yàlla dellu siwaat jàmm seen diggante ñoom ñëpp daal loolu lay ñaan. waaw Cheikh Bara Ndiaye de moom chroniqueur la te dañ koy suivre quoi tey tey li muy wax tamit askan bi da ciy gis euh, boppam waaw wax dëgg yàlla askan bi la fi nekkal. ba léegi bi mu def mu entamé grève de la faim booba actuellement sonn na lool nekk ci prison bi euh, noo jàngate d'abord ni nga ko jàppee ak li mu xam ne moom def muy grève de waaw wax dëgg yàlla man de gisuma dara loo xamante ne wax na ko lu garaaw loo xamante ne war nañ ko ko jàppee waaw mbirum euh, grève de la faim bi tamit ah, loolu am na ci droit parce que tey euh, waruñ la jàpp ci loo xamante ni yëgoo tinoo jékki saa rek gis ay nit barricade ñëw sa kër quoi euh, jàpp la yóbbu la te yow xamoo lu tax ñu jàpp la boo fa nekkee lu mat ay quelques jour wala sax presque mois ay quelque mois Euh, jot na nga def loo xamante ni dina tax waaw nga am yaakaar ni di génn quoi wala say njaboot am yaakaar ni di nga génn. Sonko euh, bokk na ci bi chaque fois wax ci plateau yi di jàppale Sonko ñu bëri moom Cheikh Bara Ndiaye nu mu nu mu taxaw ki Sonko moo tax ko gars yi jàpp jàpp ko rek ki daa koy ki daa koy ci indi comme leeral. waaw ba léegi loolu tamit du ñu ne déet ah, parce que gis nañ ko ci yu baree baree bari waaw si ñu bari laay wax. ñuy jege ñuy jege saawaay Ousmane Sonko ñu ngi leen di jàpp tey Cheikh Bara Ndiaye euh, chronique wax ji doon wax ci askan bi la ko jëmale dëgg la waaye tamit euh, ku faral euh, saawaay Ousmane Sonko da ciy gis boppam bu baax a baax waaw parce que moom it dëgg moo ko tax a jóg ñoom ñaar kenn ku jënd dëgg moo ko tax a jóg kon keneen ki nekk fee di xeex dëgg moom it da gis boppam moom it waaw day jàpp ne lépp lu ñuy wax rek ci moom lañ ko jëmale waa fekk du loolu gisee taxawaay bi si waa këram def barki démb ñu gis ko waa këram te ngeen ñu def benn point presse di wax di maam Cheikh Bara Ndiaye actuellement ñu ko nangul lekk nangul naan te boo ko gisee sax ki ki ki doo ko xàmmee loolu noonu loo siy jàngat. waaw li ma siy jàngat lenn la rek nangul lekk nangul naan bi yëpp ñun xam nañ lu ko waral te waa Sénégal tamit xam nañ lu ko waral quoi comprendre nga kon euh, bi ñu xamee ne loolu la tey euh, sawaay bu demee ba tollu foofu noonu. ñi nga xamante ni ñoo ko téye ñoo war a xam ne kii nii am na am na lu mu doon xeex loo xamante am na am na lu ko jot waa tey loolu noonu war nañ ko bàyyi mu dem faju ji te bu bàyyi bu paree foofu tamit ñu bàyyi ko mu dellu ci këram ci njabootam parce que soxla nañu ko quoi. waaw di wax naan moom Cheikh Bara Ndiaye mosul manqué màggal Touba te fi mu toll nii màggal bi léegi mu ñëw te bëgg ñu bàyyi ko balaa màggal gi ñëw loolu tamit loolu ci indi comme comme ay leeral. wallaay wallaay taalibe la taalibe la jege na leen lool lool foofu la bokk. te li ñu wax mosul ko tardé kon du ren la ko war a tardé ñu ne lan moo tax ñu tardé ko parce que dañ ko jàpp dugal ko ci kosa gi lii moo tax wala lii te mënuñ cee indi benn arjument boo xamante ni leer na ñu ne lii nii moo tax ñu jàpp ko comprendre kon lii li gën a leer li gën am solo daal mooy ñu bàyyi ko mu dellu si njabootam dellu ci ay ay mbiram waaw te maa ngi dégg tamit ci télé yu bari ñuy waxtaan ñi ni ku maanaam ku ku yaatu la woon daal si ay affaire joxe ak yooyu noonu quoi te tamit ñu bëri la doon ñaanal ak euh, te moom dara taxul koo jox lu dul yàlla suñu borom si téere bi lay nekk ci kurus gi waaw yooyu noonu daal islam daal moo ko ñor quoi kon nañ ko bàyyi mu dellu ci njabootam. loolu jàngatee démocratie Sénégal parce que fi mu toll nii ku wax gaa jàpp tëj loolu noo ko jàngatee ñàkkum démocratie bi nekk ci réew mi. waaw wax dëgg yàlla man de du ma mag xale laa waaye li may gis jamono ji bokkut ak li ma daan gis bu njëkk waaw maa ngi koy dégg tamit ñu koy wax dëgg la démocratie bi instant bii ni dafa wàcc lool lool lool lool waaw instant bii moom dafa wàññi parce que tey su ma su ma nekkee fii te man mënatuma wax loo xamante ni maa ko war a wax su ma ko waxee ñu ñëw jël si ma yóbbu ma wala keneen wax ko mu ñëw jël si ko yóbbu ko loolu nekkatul démocratie ko leneen la waaye. la ngay euh, looy looy wax ñi nga xam te ñoom ñooy nguur gi ñooy jàpp ñi nga xam te ñooy jàpp Cheikh Bara Ndiaye ki ki loo leen di wax. waaw ñi ko jàpp te lenn rek xanaa ñu ën seen xel waa xam ne nguur moom suñu borom rek moo am nguur gu dul jeex nguur yëpp ay jeex suñu borom rek moo am nguur gu dul jeex te nguur doomu aadama moom lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg day jeex waa benn yonente ah, euh, maa ngi fàttaliku su ma juumul yonentu yàlla Suleymaan amoon na fi nguur goo xamante nii ñu ko jege sax yaakaaru yaakaar nañu woon ne nguur gi du jeex te mu fu muj mujj jeex na kon bu dee nguur yii nii rek waaw mooy loolu te li leen dese bariwul lépp lépp mënoon nañu gën a rafetal xamante ni suñ fi jógee rek ñu woyal leen woy bu rafet waaw. noonu mbokk yi dégg ngeen bu baax baax kàddu yi nga xamante ni ñenn ci ay sénégalais wax nañ ko jëmale ko ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Bara Ndiaye moom mi nga xamante ni wax naa ko sànq. ba léegi mi ci kaso bi def li nga xamante ne moom mooy euh, grève de la faim ñu ñaan rek euh, suñu borom bi nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy buur Euh, mu may ko jàmm ak salaam ba mën a génn foofu nga xamante ni moom mooy euh, prison bu mu nekk en tout cas les sénégalais ku nekk am nga xat boo xamante ni yaa ngi ko yëkkati jëm na ko ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye ñoom si ñenn ci askan bi ñu ngi ñu ngi sàkku ñu bàyyi ko ma nekk ci ay yitteem ba gën a amaat li nga xamante moom mooy wér-gu-yaram di gërëm baax baax ñi nga xamante ni ñoo nangu woon wax ci eh, mbirum Cheikh Bara Ndiaye di gërëm yéen tamit yéen ñi nga xamante ni yéen nga topp eh, li nga xamante ni moom mooy 313 eh, digital jërë ngeen jëf bu benn incha allah